سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله تبارك الله mbokk mbokk soppe yi rawatina waa kër Cheikh bu Mouhammad waa kër maam Cheikh bun Ama waa kër Cheikh Abdou Qadir Jeylaani yéen sumay soppe yéen sumay mbokk jullit ak tarixa bu ngeen mën a bokk communauté chrétienne bi waa diaspora àddina wërngal këpp am nañu sunu yëfu bokk te kenn ku ci nekk nag am na fooy yeewoo mu Ndiassane TV maa ngi ñaan képp koo xamante ni sopp nga Cheikh bu Diop mbaa nga sopp képp kuy tagg yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga ñuy xool ci Ndiassane TV ngeen topp ko ci euh, YouTube bi ngeen topp ko ci Facebook fa tabarakallahu di ko suivre ndax léppi kunta léppi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donte kenn mënta wax léppam waaye li ci ëpp ci jàngaleem li ci ëpp ci nit yare li ci ëpp ci lan mooy valeur tariqa lan mooy valeur soufisme ku xool chaîne bi fa tabarakallahu di nga ko gis ñu ngi leen ci woo te di am yaakaar ni di ngeen ko ànd ak ñu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah